asalaamaaleykum xam naa di ñëw ci ki nga xam ne dafa wax ne allahuma laka sumtu moo ko gënal asalaatu xayrun min an mi xam naa nag kooku dafa bàyyiwul xel waaye li yàlla jàngale ci koor moo gën a gàtt li nga xam ne moom ngeen daan pratiquer te loolu mu wuuteeg li yàlla jàngale te gën koo métti nag ndax soo xoolee yàlla li mu jàngale ci koor Euh, waxtu wi nga xam ne ci ngay arrêté xëdd waxtu woowu moo gën a naaj ndax su maam su fajar yi xaree su fajar gi xaree ci ngay arrêté lekk te léegi yaa ngi ndogu ci soo demee ba timis gi maase su timis gi maase guddi gi ci lay tàbbi nga xam ne kon li yàlla digle moo gën a gàtt yéen li nga xam ne moom ngeen di pratiquer ndax yéen da ngeen di teel a arrêté xëdd te soo xoolee it ba tey beneen mbir mu xaw a doy waar euh, li ngeen daan yàqee seen koor ci lu jiitu nga xam ne daa nekk maam waxtu wi ngeen di ndogu bokkut ak li yàlla jàngale li ngeen daan yàqee seen koor su ngeen ko bàyyee xel matul woon sax benn trente minutes ngeen gis ne waxtu wu timis di jot ak waxtu wu timis gi ni maase soo xoolee matul sax benn trente minutes kon wax dëgg yàlla macha allah mbir la mu xaw a doy waar boo xam ne. nit ki su jàppee ne li yàlla digle dafa xaw a métti maanaam loolu ñàkk xam la rek waaye soo xamee li yàlla digle dina xam ne moo gën a jàppandi sax li nga xam ne ñoom moom lañ daan jëf ndax li am solo lu mat a bàyyi xel loo xam ne incha allah ci kanam di ngeen ko découvrir ci ñi nga xam ne xëy na demuñ ci chaîne ba fële ci YouTube wala Facebook bi di seetaan vidéo yi dinañ gis ne diine yàlla moo gën a yomb fuuf moo gën a moo gën a jàppandi fuuf te moo gën a juste fuuf li nga xam ne moom la nit ñu jàngale ndax nit matul moo tax am njàngaleem jamono bu ne képp ku am xel soo ko dee bàyyi xel di nga gis ne dafa bëri ay contradiction bari ay mbir yu yenuwul maanaa loo xam ne kenn ku ci ne da koy mën a xamal boppam ndax dama faral di wax ne ñoom sooy wax ak ñoom da naan la diine du xel ma ne leen loolu ñuy wax rek wérul te day wane ne seen diine ji du diine yàlla ndax yàlla moom day wax ne borom xel yi lay waxal ba pare nag di leen laaj ndax da ngeen dul xelaat ndax da ngeen dul xellu ndax da ngeen dul fàttaliku yii yëpp suñ borom di leen ko laaj ñoom ñu ne leen mbir yi du xel may leen lépp loo xam ne wax nañ la ko ne la diine la soo ko déggee maanaam sa xel bañ sa xol bañ soo ko toppee ba ca biir maanaam empreinte nit nga fay fekk da ngay fekk ne lu ay nit dugal ci mbir yi la. waaye yàlla moom njàngaleem lu logique la loo xam ne lu kenn ku ci ne day lu kenn ku ci ne mën a vérifier la te ñun yàlla dogal na wax dëgg yàlla comme ni ñu koy waxee lu ñuy wax ñun duñu ci dara li yàlla wax képp la ñuy wax joxe référence yi ndax waxu yàlla yi ñu ne yëpp ñoo ci bokk yem jafe-jafe bi kay mu ngi nekkoon ci yàlla lam ñu digal ci ab téeréem mu ñu koy settantal yàlla dogalu nit ñi daan ko def nit ñi lu ci bari li daan doyloo rek mooy ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw di wax ci alquran ngir di saxal seeni idéologie léegi nag yàlla dogal nag ay nit ñoo xam ne suñu borom yéene leen ci téereen ñu ñëw di ci bàyyi ñu ñëw di ko bàyyiloo xel nit ñi di leen fàttali te lépp lu leen jox dañ ni di jox référence yi ne leen dem leen ngeen vérifier seen bopp kon wax dëgg yàlla macha allah sant yàlla bu baax a baax xam naa liñ doon wax ci koor gi moo xam ci wàllu ay mbiru naafila ay mbiru Euh, li ñuy wax ay muurum koor ay li ñuy wax ay korité ay li ñuy wax ay laylatul xadri xeet yooyu yëpp incha allah xam naa dinañ leen ci dugalal ay vidéo yoo xam ne defoon nañ ko bu yàgg yoo xam ne dina tax di ngeen xamal seen bopp li nga xam ne moom la yàlla jàngale par rapport ak li nga xam ne moom la nit ñi jàngale macha allah kontaan nañ lool ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf wasalaamualeykum